dégg nga ko. ah ba. gratuit laa leen koy may gratuit. mais ay ca yoo xam ne laa koy may gratuit. gratuit laa koy may. wuy ma. wuy ma daa mel ni sa xol sedd na rek. billaay moom laa soxla. barki yàlla moom laa soxla. mbër bu mag laa du ma mbër bu ndaw. nag mu mag du yàq ngooy. nga di ko soxla. Papa Sow laa soxla. Papa Sow waaw na yow yu bëree. léegi léegi. wóor ah, Papa Sow. comme man ma bàyyi bëre. yow lii nga radis. waaw comme Papa Sow diisul. par sëñ Bamba. du cas du problème barki leeru alxuraan bu doon léegi neex na waaw noonu la demee ku la su teg moo loolu xel la. en tant que jeune en tant que lutteur nit ñi di la bàyyi xel. waaw noonu la demee ñu nemmeeku loolu naasul barki alaaji fàllu yee ndax tamit xam nga baxan dafa foor quoi mais tamit xam nga ñu koy def ñëpp du seen sago yee kenn bëggul tim ni di ko rey wóor na sëñ Fallou ndoxal bu yàlla bindoon si ñoom la rek yàlla na leen koy waa xam nga yàlla na leen yàlla taxaw xam nga ba suñ waaw suñ si amee a après ñu génn si xel bu sell. mais d'accord nga peine de mort am pour ñu rey la. jeex erreur la loolu maanaam yàlla moo koy bind si dessin yoo nit. yaa yàlla mën na bind ñaanu ma ko yàlla man ma yow rey kii su ma ko ñu rey ma kii su ma ko rey ma comprendre man ku ma rey ñu rey ko dañuy reyante rek daa am jeex Bamba